xoolal 54 bi 54 bi de gis ngeen 54 bi allahu akbar 54 bi momen mel Yo. gis ngeen de gis ngeen 54 gis ngeen de 54 bi allahu akbar gis ngeen nit gis nit de Lütfen.